asalaamaaleykum mbokk yi nuyu nañ leen ziar leen bu baax baax di wax ngeen wéy di abonné te di activer cloche bi ndax euh, vidéo bu ñu dugal di ngeen bokku ci nga koy njëkk gis wéy leen di like di commenter ak partager lolu ngeen ñu mëna jappalé tay nak euh, dañuy ñew euh, jox leen li nga xamantene moy 11 probable bi Aliou Cissé nar a suba ci diggante Gambie ak Sénégal bu 14h jotté donc ci ci bëccëg gi inshallah suba le Sénégal war a football premier match de poule donc ci diggante mom ak Gambie mu na a nekk match de derby match bo xamante Sénégalais yi bari wajal nañ ko je pense que les naru nekk match bu yomb quoi et il va falloir que Sénégal am solidité défensive bu baax mais am. Euh, euh, euh, li nga xamante mo efficacité bu baax ci kaw donc budul lolu dina metti lool ci ñun surtout que xam gambe xam que ne seen équipe boo xamante ne bloc bas dañuy footballé te en général équipe nationale Sénégal bloc bas yi day am problème ngir dugal leen mais en tout cas ñun liñ ci mënti wax rek je pense que le Sénégal mooy gagné match bi ak lu mënti méttee metti mais ñun équipe bi nga xamante ne moom lañ yaakaar que ne Aliou Cissé moom la nar a teg suba moom la leen di indili jàpp nañ que ne suba ci camp yi Edouard Mendy moom moo ciy taxaw le le le gardien le gardien numéro 1 du Sénégal fekkee ci latéral gauche bi ki nga xamante ne mooy Ismaïla Jakobs donc 4-3-3 la ngi un système 3 défenseurs pour man 3 défenseurs jël ko vu que Gambie la équipe la bo xamantene ci si football jëru ñuy tek 3 défenseurs mais na koy football ak équipe bo xamantene un da fay ñëw ci suñu kaw donc jëru ñuy football 3 défenseurs pour man te Sénégal souvent dafa am problème de football euh, système 3 défenseurs donc nañ moytu lool non kon 4-3-3 laa ci gauche bi ki nga xamante ne mooy Jacobs euh, droite bi latéral droite bi Vigo Sabali dafa dafa blessé ki nga xamante ne mooy euh, Krépin Diatta moom moo fi taxaw donc match yi yëpp euh, dernier match Sénégal football yëpp moom moo fi taxaw te gis nañ lim ñuy wan bu baax donc convaincre nañu ci performance yi nga xamante ne def na ko mais fekkee ci défense centrale bi ki nga xamante centraux yi ki nga xamante ne mooy Kalidou Koulibaly le capitaine le ministre de la défense donc moom moo ci taxaw ak ki nga xamante ne mooy Moussa Niakhaté fekkee ci millier de terrain bi Nampalys Mendy pap Matar Sarr ak ki nga xamante ne mooy Pape Alsane Gueye donc ñooñu laa gis fekkee ci li nga xamante ne mooy ci euh, attaquant yi euh, Nicolas Jackson comme pointe Sadio Mané comme ailier gauche Ismaïla Sarr comme ailier droite donc Sénégal jëm kanam donc en tout cas lii lañ leen indiloon lii lañ gis yéen ñëw leen ci commentaire yi ngeen wax seen xalaat ak seen gis-gis di leen wax ba beneen si yeneen beneen vidéo jaa ngeen